وظالمين من كفاني الصدمات سعادتي عند الإله الله لي ظهرت عند غير الملاهي لم ينحني عند غير الخمور سوى رضا باق عند أموري الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وحده ومتي أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokk أه، jullit yi tedd yi ñuy seetaan te dañuy déglu ku Euh, ñu ngi bëgg a waxtaane kilifa gu màgg gu tedd waaye itam bis bu màgg bu tedd euh, ndax jataay bi kune xam na ne euh, jataayu lislaam la jataayu murit la kilifa gi ñuy bëgg waxtaan nag te kilifa gu fi jaaroon goo xam ne yàlla suñu borom moo ko baaxe woon xeet wi mu war a nekk royukaay te suñu borom li muy digal ci royukaay mooy roy loolu moo tax ñuy waajal bis bu màgg bu tedd mu bisu sunu jàmbaar ja di jàmbaari jàmbaar yi ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha tudde woon muy Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bis bi di bis bi nga xam ne ci la feeñe woon jamono di ñaar fukki fan ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor ci njaareem ñu def nag saa yu bis bi jubsee sëriñ Sidi Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal di ab xalifaam ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér mook mbooleem ay rakam di ñaanal magam kilifaam di Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu yàgg fi lool te ànd ko wér mbooleem ay yéeneem yàlla suñu borom àggaleel ko te mu ànd ko taaliba yëpp saa yi bis bi agsee mu digal ñu di kuréel gii di lañu du saqaafa di commission culturelle bi nga xam ne moom ci boppam moo ko taxawal te jubluwu ci lenn lu dut gën a yaatal njàngaleem Cheikh Abdou Lahad gën a fàttali ko dundam gu fees dellëg ak njariñ ba tax mu wut ay doomi soxna yoo xam ne ñoom it seen yitte jëpp du lenn lu dut tënku ci loolu te mooy njàngaleem sëriñ bi commission boobu nag ñu ngi ci ànd ak bokk yi muy sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Moutalib Bousso sëriñ Abdou Lahad Bousso bi maam Asta sëriñ Bousso bi maam sëriñ Bousso sëriñ Cheikh Abdou Lahad Ka sëriñ Mouhamadul Kabir Ka sëriñ Moussa Ka sëriñ Abdou Lahad Bousso bu sëriñ Thierno Bousso bu Afia ñu wuti fi yeneen si Abdou Lahad yi ak yeneen mbokk yi ñu ko àndal sëriñ Abdou Lahad Bousso bu sëriñ Mokhtar Bousso bu sëriñ Afia ak yeneen mbokk yi ci des yëpp ñu ñëw fii nag ci kër goo xam ne yaakaar naa ne kuy bëgg xam dara ci ak murit ak taalibe soo fi ñëwee ak si nga ndax borom kër gi li mu waxoon mooy ak taalibe moom ñëwu ci kenn ku dut Cheikh Ibrahima Fall làmp te ku ne xam na Cheikh Ibrahima ni mu meloon ci yoon ci ak taalibe muy kër Cheikh Mouhamad al Fadil radiyallahu anhu wa nafaana bi kër googu it ku ko wax xam digganteem ak ki ñuy bëgg a waxtaanee muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ci ay taxawaay yu am solo. kër nag ñu tànn ci it kenn koo xam ne it e, ku ko tudd moom it tudd ak murit tudd pas-pas e, tudd jom ndax li nga xam ne mooy li am solo te mooy li sëriñ bi bëggoon ci nun te li li ñu tax a jóg muy bëgg a fàttali ndaw ñi wala xamal ndaw ñi fàttali mag ñi moom mi de ci koo xam ne kii ñu bëgg waxtaanee ku ko marke la ku mu yëg la ku ko ko aw doxinam neex la ba tax na mooy royukaayam ci lépp ci jaamu yàllaam ci muritam ci lépp kon muy sëriñ Habibu Mbàkke mu Seex Muhammadul Fadil defe naa ne loolu moo tax liggéey yu am solo yi nga xam ne dëkk bi mënu koo ñàkk te borom dëkk bi loolu rek la bëgg ci dëkk bi liggéey yooyu mu taxawee ci taxawaay bu am solo ci fànn yëpp yu tax dëkk bi gën a nuroo ak turandoom ba mu ko tuddee ci aljanna muy Touba mu jiite kuréel gi ñuy wax Touba ci kanam di daayira bu am solo boo xam ne li yitteem jëpp mooy na Touba jëm ci kanam te kenn nattiluwut ne Euh, taxawaayam tax na kuréel gi taxaw taxawaay bu am solo boo xam ne ñëpp noo nañ ko ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu gën ko ci defal ay ndam yu kawe bàyyi ko fi lu yàgg lool te mu ànd ko wér yàlla aar ko musal koy nu raw ni mu aare dëkk bi ci barke sëriñ Tuubaa mbaax mi kon sëriñ Habibu ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax ci turu sëriñ Sidi euh, di la laaj rek kii ñu bëgg waxtaanee muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ba ko doon misaal ci góor yàlla ci ba ko doon misaal ci taxaw ci lislaam ci kilifa gu toll na moom ba ko doon misaal ci ak murit nañ nga ñuy misaale Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. Euh, yaa rabbi ihal muridina maan fi hisnil islam wa sam taalibe yi bokk julli yi turandoo Cheikh Abdoulaye yu teew ñu ngi leen nuyu kenn ku seen tur seen sant de den ziyaara ziyaara boo xam ne julli dana ko nuyu ziyaara bokkum jullitam waaye ziyaara boo xam taalibe dana ko ziyaara bokki taalibeem di ziyaara seen siidi mi nga xamee moo nekk ci bunt ko Cheikh Abdoul Ahad ak njabootum góor gi ak njabootum gépp waaye njëkkati ziyaara bi ak nuyoo bi Sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Mountakha bu ñaan yàlla yàlla ku yàlla yàggal te àggali mébitam te wéral ko wéral wéral la ko ñu ko euh, fi liggéey bi nga xam ne mi ngi ko gàddu Seex Xadim ñëpp ñu ànd ko moom ba fu mu ko bëgg a àgg mu àggale ci ak Seex Xadim euh, ñëpp laaj laaj ma laaj bi moo a jaaxal nag ci misaal kan sëñ Abdoulaye daal xam naa man maa ngi ne amul fiqri la amul fiqri mooy yaxub digg ginnaaw ci yoon murit loolu laa ko a a tuddee jawaani bi mu féete ñaari wet yu féete yëpp ci wàllu Seexu Xadim wàllu gi nga xam ne mooy njaxate kuñ tànn mu avant mu ñëw jamono te ku Sëñ Tuubaa yaakaaroon la ci te yaakaar Sëñ Tuubaa yàlla wut si mukk ndax Sëñ Tuubaa mos ta yaakaar suñu borom mu jëmm joo xamee ni ku yomb waxtaan la waaye ku jafe waxtaan la ndax dañoo wax ne ñaar kenn ci mur seede ku lu bëgg ba ñëpp xam ne bëgg na la ak kulanoo bi yëpp xam noonu na man nag yàlla dana nattu ñu bokk ci ko bëgg ba xam ne dañ ko bëgg ci di ko roy damay wax toujours ne man mooy sama roy téef ci yoon yi ndax lu tax ñaar ñi mu wutu muy Cheikh Modou Moustapha Fadil seen taaw ci saa yéer ñoo ko mag waaye bëgg Sëñ Tuubaa ak pastor Sëñ Tuubaa moo ko àgg dafa jëm ba bu ñu tuddee tudd ko boo ne ñaar ñett ngay wax kon boo ne iman islam ihsaan waaw mu jëmm joo xam ne dañoo marqué lu bëree bëri xëy na jaxasoo gi bëriwul maanaam ci moom waaye tuuti lañu xam ci moom rek ndax du ku ñu xam sax ku ci wax daal ci la la la la boo rek bii du ko abbu jox ko si te boo la moo xam ne boo ko solee ñëpp dañu xam dëgg la fekk bi see xool sëñ tubaab yàgg mu ne ko fa fa kullu matxin baliixin xii da fi rajulin fa ant saahibu yaa ayyuha rajul aw tagg fu ma dee rek fu mu jotee fi ñu ko waxee rek ak fu mu neexee rek yow mi yaay borom kon loolu ma ne si wax jëmm joo xamee ni ku sigal sëñ Tuubaa la yoon murit la yoon wi day mas naa dégg ci mag moo xamante ni jaxasoo na moom muy sama man mii mu ne ko sëñ Moodu mu ko sëñ Moodu xëriñ ak mu ne ko mu ko Mbàkke mu ne ko yoon wi bala ko bàyyi rek daa ci def sa jigéen dana ko mën a yor naa ko ci ab sag waaw ba ba yor jén sax da ko mën a yor <coughs> te am na nga ndax euh, sëñ Tuubaa sëñ Abdou Lahad li muy njëkk di doomu aadama complexe col gëm naan col ay daal sol garam boobu di sol ay xaftaan waaye bàyyi laat ci moom moom ko keree génne ko muy mu moo xam ne kenn du ko sol ñu nattul la doon koo sol rek seytaan day ragal moom kon daa mel ne kon yàlla defal na ko loo xam ne mbedd moo xam ne comme jaar rek seytaan day doon <laughs> loolu moom ñëpp xam nañ ko ndax bi dikay dëkk bi duñ fekk mu fexe ko taxaw ci te bo kenn ku jàpp ne mën ko mën naa génn amut waaye xam suñ jëm ak li mu bëgg moo tax mu mu mu àggal fu jëm ci bare bare yoo xam ne mën su ko wax ba ci ñun ñi rek bare bi ñu dëkkee toog nañ fukki at ba sëñ Fallou dee 1968 ba 78 amuñu fenn fu ñu nekk ndax bàyyi dara ci àdduna lu taxaw ci saa si waaye du ñu bàyyi mooy sëñ Tuubaa ñu koy laaj dafuñ dëkk ñu ko amuñu kër mu tudd yàlla daan loolu sama kumbala woon ñëpp sëñ Fallu tax ñu dëkk si Tuubaa waa kër loolu sëñ Fallu war yoon man sama doom du ma ne dafa dara lépp loo xam ne sëñ Tuubaa la ko jox ca tàmbalee ku judd mu tuddee sëñ Tuubaa bu dee góor bu dee jigéen mu tuddee ko ci ay mbiram ba tey eh, turam xaj na njëkkatul ci àdduna waaye moo leen ko njëkk xamee ci àdduna rek ndax ndax ko suñu tubaab tuddee Abdoulaye kenn xamul moom am na wax nañu bis rek dañ ko tuddee lool dañu naan waa tur woowu ku ma sa dégg Abdoul bu la dégg nañ ko rek waaye xul euh, wala ahad allahu samad lam yalid loolu nekk moom daa am lu muy wund ci biir xam ne bi ngeen àdduna da sëñ dafa wax ne ku sawar ku ko tuddee sawar nit ñi dem njaaree mi yeeg càng yaay di bind bind ma xool ndax Abdul Ahad Abdul Ahad ñoon déedéet ku lay wax daan nangam nangam loolu bokk na ci suñ bi ne taxaw fu ñu ko toppatoo fatt su am ñoo def foofu ñoo mag ñi ko ñoo nekk fii de mun a tënkoom fonk leen ku baax de ndax am naa ci moom yaakaar te ku ne xam ne te su jàkkaar Sëñ Tuubaa hmm. dañuy wax ne kon dafa mel ne Sidna Omar rek ma di saat jamono ndax dëgg nga nga xam ne lenn caaxaan loo xam ne nit doo ko def sax jiw seeb laa di ko di di di di ko xalaat du am nettali loo xam ne loo gis rek mu am ginnaaw ginnaaw dogal subhaanahu wa taala maanaam cosaan lu baax ba na ci ndax wal baladu tayyibu yaxruju min dawaatihi bi waaye wala si xabas laa yaxruju illaa nakidan ku dem ci suuf su baax su su saf sàpp nga jë ngeen ñu ca dina am yaakaar ci ne dana jiw lu baax. loola kon tànn nañ ko ay wéjur avant mu ñëw ndax sëñ bi ne wax na ne daa xëy bis boo borom daaru mooti ne ko damaa bëgg wutama ci néeg boo xamee ne musu nee na moom musu ñëw di lekk ma yàlla te doon di borom yi jud di borom xam-xam mu demee sëñ Modou yàlla taw feexal ko fa mu roñ fa ñëkkoon soxna Mariama ak soxna ñëpp indi leen bi muy xam ne jiit so ndax ndax luy wax ci cosaan lu baax ak ak ak kuy waajal. sëñ Abdou Lahad noonu nga wax simbi am raxasu képp nga xam ne ku ku ku am teraanga ngi ndax ko jox raxasu bu ko jox ndox bu tuuti da nga ko jox bi jaar mu raxasu ca ndax bu fekkee daa loxo yi daa tilim du ci feeñ ndax bu ti bu raxasu ndox bu tuuti day am gàcce nga gisee amati yaan si ñëwoon eh, bu nekk ba ñaari yoo am na ba ñaari ba ñaari yéen di yooyee di nga ko ma fees war nga ba mu jomp ci kaw ni ñu jël ci néew bi ñu def benn ci loo xam ne ma nga ja war a ataat lañ ci wane rek teraanga ji sëñ Tuubaa teraanga ndax li ñu sëñ Mbay Jaxate dafa xool sëñ Tuubaa di ko yaa yeewu yaa a yeewu askan bi ngi yeewu askan pint pantangam am na ku baax koo xam ne nett li ma koo xam ci ci ci ci mbokk yi la bokkoon yàlla ko doon taw muy soppiku jamono si yëpp ter yi fii mu soppi ko ba as yi bëgg daanu ci kawam. nee na ma ma jàppale yóbbu ma ko ci néeg bee. téye leen ma ko fa taal ko seetlu kaay ga. ñu taal ko kii ma seet bu ñu ànd ba takk san jot mu ne indi leen ma mu indi ko ay ceeb ginaar mu añ ba suur ñu indi ko ataaya jox ko. mu dikk yëkkati ko jënd jox ko. diw sàngam. ataaya di maanaam guro de moo dàq yi nga def ataaya moo génn nangam wax leer bu dem ko tekk bi yàgg bu ne ko ah bi. nekk suñu tool bi mu defati. ndax wërna ma ne yow day li nga tere maa ngi ko def gis na ko baa ko defee te ba nga maa rey doo ko lay yàlla ma nga tëj toroxal ma doo ko lay kenn waaye sama bàyyi ba am na sa bàyyi baax ba képp nga nga nga ma segal la di waaye bàyyi donc ngir ngir suñu tubaab def ma defati kon teraanga la la la la jiyee ko bi fi indee kël bi yooyu ñu yóbbu si dëkk bi ñu ah si yëpp la di kenn musu def nangam nangam mu ne mu ne kël bi yooyu kël bi la ñuy xalaat seet loolu ci boppam yéeme la bi fi nekkee sëñ Tuubaa dañoo yekkal maanaam yàkkali na yeggale na ndax li nga wax ñooy ñun ñi nga xam ne ay tu tànk yoon rek te mu wutu suñu kilifa googee yeggale gi mooy mooy war ma ji jox suñu fàllu jàppee wu ko nañu bokk suñu tuwaay jëm ci way jur ko jàppee woon moom ba tax na njaboot suñu fàllu gi nga xam ne ñooy ñu dëkkandoo woon kenn ko xam si la noonu jël ci am ci amu ci ndax war ma gim jo ko jox ngir suñu tuwaay suñu fàllu mosu ñu ma xam si ibla war daal si ibla war ma la ko joxewoon kon di ñaan yàlla fayal ñu ko rek lim yéene ci lislaam yéene moom ko ci lislaam def ko ci sax loolu defoon rek bu ko suñu toog jóortoo rek du lar waaye lim génne ci dëkk bi ci ci ci ci ci xeet yooyu rek yàlla mën na ci defa mbir addo alaxira kon yàlla ko yàlla bu ko jiitu mm, nit ñi nag dañuy ne seen heure tour ku baax ku moo jar ñaana ndax cat day topp di bi ci bàmmeel nit daa baax ñu ne ah kooku jar ñaanal ne te loolu cat la waaw ndax sallallahu alayhi wasallam mu ñëpp dañ ko ñaanal parce yàlla ko yàlla dafa cat yàlla na yàlla teg loxoom ci ak njabootam li mu liggéey Sëñ Tuubaa yàlla na bi set yàlla yàlla na ko yàlla gën a yeesal. mbiram nag moom xam naa ne eh, liñ ci mën a wax rek alxuraan moom ni ko ni ko jëkk woon ak ni ko waxoon mais eh, day mel ne aay yi ni mu wàcc ci sallallahu alayhi wa sallam lay ñëw <coughs> fu am aay war place yi te bari naa ba saar yi di soree di maa diggante bi soree waaye nu koy xalaatee rek day day day ñëw benn départ fii benn dikk ni comme ni alxuraan nu wàccee rek nekkul wàccu bi jumla da wàcc ay fii ay fii ay fii waaye bu ma sàtti euh, du bind discours lu mu bëgg wax rek koy wax ci saa si kon bokk na ci kim taan ko xam ne defal na ko dégg alxuraan nga xam di ko dégg yow moom yow mi xamul yow xam-xam sax mënoo mënoo xam dooy firi bu sëñ la jàngee aay bi da xam ne firi ci saa si ndax ko jegeel dafa la jege dafa la jege aay bi jegeel la ba xam yow mii euh, xam nga ne xam nga ne xam nga ne kii daa mel ne moom la yàlla wax ci alxuraan ci moom loolu lépp ci bagage Sëñ Tuubaa yi la bokk suñ bee bari bagage rek man nag li ma gën a marqué boobu ba wax ne man mooy mooy sama réussite mooy parce que ñu am Sëñ Tuubaa ak bëgg gi mu bëggoon Sëñ Tuubaa ak wóolu gi mu wóolu sëñ bi donc wóolu Sëñ Tuubaa la woon wax nañ ma nee nañ kàllaaj yi na takk yëpp bis mu doon Sëñ Tuubaa bis mu dee daa gas lépp mu suul mu gas mu suul ko fa daa dina lay muslu amatu ma ndax fii moo fi jëj armée laa jëm waaw am lu mu sooti ndax ku dem mën a yaay suñu tubaab moom amul fu ne bu fu jógee rek seen la jëwati kon nag luy mus doog lu mos jërtu ko maxtu woon takk la ay ñaani kon yooyu la wax waaye yi moom xalaatu ko woon boppam yàlla lépp jox ku wéetal yàlla woon nag turam boobu day euh, tur ku wéetal yàlla la woon ñun ñëpp xam nañ ko ci bi rek loolu bu